yéenekaay bi di libération ne kawteef ab armateur gu fab lu toll ci ñaar fukki conteneur ak juróom yoo xamante ne dafa fees del ak ay déchets plastiques gamu nar a sotti ci suñu wax yi waaye mujjee nañ ko teg loxo. ñu wax tamit ci li nga xamante ni mooy libération ak tentative bi nga xamante ni jëm na rek ci wàllu fraude ak yu ni mel armateur bii daal nga xamante ni gis nga ko noonu kon euh, journal bi nee na daal ak toppaleeg wàllu flagrant délit dañ ko ko jàppe ba tax na kon lu toll ci ay conteneurs yoo xamante ni daal euh, jaarul ci yoon mbiram moom daal euh,

Euh, yu fees dell yu ñu def déchet plastique ak euh, navire boobu di Ansa euh, Neuberg ñoom la ñu daal rek teg loxo douane bu Sénégal ñoo daal di def opération bu ni